pénal moom temps yi passé rek defoon naa ci benn vidéo quoi di wax ci maanaam longue détention yi quoi prison camp pénal dafa nekk prison bu dense foofu prison de 5 10 15 20 ans ñoom ñoo nekk mooy tamit comme prison mag bu nekk foofu tamit ay jigéen lañ fay tëj foofu tam pour longue peine la ak yoo xamante ne ay perpète la quoi bokk na ci prison yoo xamante ne kaso condamné la du kaso prévenu moo léegi prison camp dafa amoon benn coow bu fi amoon démb mais coow loolu amoon fa démb mooy chambre huit la chambre huit campénale benn néeg la boo xamante ne franchement pare li parce que man chaque jour damay jokkoo ak euh, détenu ñoom sax nee nañ papi ja de voix suñu problème bi ñu amee yow lañ koy wax man damay jokkoo ñoom parce que vidéo yi daw fi parce que man lañ ko njëkk a envoyé mhm. comprendre nga mhm. mais peut-être dafa am benn problème bu amoon chambre huit néeg bi chef de chambre dañ ko bëggoon jox benn chef de chambre mais chef de chambre bu ñu ko jox mu bañ histoire réelle bi am léegi nag buñ ko joxee benn chef de chambre chef de chambre bi nag na moom mun na jël néeg bi mais il faut que fa 15 personnes mais 15 personnes bu ñu dafa génnee mité la parce que néeg dafa am ay moteur am na ay bandi yoo xamante ne ñoom ci biir néeg bi lañ nekk bu fekkee da nga nekk chef de chambre soo leen euh, suñ la respecté wala da nga wax ne ñu tëdd prison xam nañ ko ñooñu doo mun a nekk ak ñoom léegi nag ñu wax ko adjoint chef de cour bi adjoint chef de cour bi ñëw na ne day génnee booy bu mu nee day génnee booy yi nag après nag. mooy 15 yi mu demandé pour ñu wàññi leen waaw génnee parce que bu ñu la génnee ci néeg bi yóbbu la ci beneen néeg da ngay rampé waat à zéro. nan la ñuy nan de chambre. dañuy xool ki nga xamante ne respecté nañ ko koo xamante ne mooy maanaam nit la quoi day yamale nit ku tooñ dana naan yaa tooñ maanaam mooy responsable néeg bi ku fa dee sa moom lañ koy laaj. Mhm. ñu ñu bàyyi ñëwaat si problème bi li waral coow li. dem léegi léegi nag euh, chef de chambre bi ne moom dafay génnee quinze quinze personnes garde bu ñu ñëwee ne dañuy génnee quinze personnes quinze personnes yi bañ parce que bu ñu yóbboo beneen néeg dañu fay nekk que néeg boo dem pour nga am place par toppante la. dañ hmm. nag ñooñu ay 20 ans ay 15 ans lañ leen tëj léegi nag bu ñu leen di génnee ñoom ñu bañ ñu jàppante fa ak garde yi hmm. mais nag bu ñu fa jàppante ak garde yi nag garde yi na nag commencé fouiller néeg bi booy yi bañ a génn ñu génnee booy yi commencé dagg seen mbuus yi di ko sànni léegi dafa am benn chef de cour bu fa nekk bu ñuy wax chef euh, adjoint chef de cour chef maris mhm. moom moo ñëw di jéem a fiyee gars yi mais adjoint chef de cour yi si renseignement yi ma prisonniers yi jox adjoint chef de cour bi newoon na ko carrément bu fiyee prison bi moom moom bu fiyee chambre bi moom mu bañ mu insisté dugg fuyee chambre bi mhm. ba booy yi commencé coow jàppante ak ñoom moom sax chef maris bokk na si ñi nga xamante ne ñoo gën a lakkal prisonniers yi moom dégg naa sax moom bal la pusole la yoroon di dóor àndax gaa yi moom ak benn garde bi ñuy wax jam ak gujaa bi ak faal ñoom ñoo gën a lakkal gaa yi ñoom dañ ma koy wax xam nga nag prisonnier bi la waxee da ngay déglu seen version déglu version administration pénitentiaire mhm. li fa xew nag ñun ñëpp gis nañ ko démb parce que ñu ngi doon wane ñu jàpp ay détenus di leen dóor ay yàq ay ay lu ne di leen ko def di leen torturer loolu moo am prison cantonale affaire yi jàppeewuñ ci néeg bi yàmba jàppewuñ fa drogue jàppeewuñ fa dara affaire de révolte la woon chef de chambre garde ñoo ñëwoon du fiyee jàppante ak gars léegi téléphone yi nga xamante ne détenus yi ñoo ko yor mhm. détenu amul droit yore téléphone dëgg la détenu amul droit yore yàmba comme tey nga takk sa benn xar sa kër jéng ko mais xar boobu tey boo ko indi lu mu lekk du du am lu mu lekk soo ko joxul ngooñ boo ñëwee yow suba gis ko mu yor ngooñ di ko lekk xamul ne ngooñ bi dañ ko ko tegal kon tey yàmbaa boobu noonu ak téléphone téléphone tactique ñëpp xam ngeen ni mu toll kaso boo fay dugg taatu leen nga fay duggee mm. dañ lay futti doo dese tuba simile ma nga set mm-hmm. kon yow foofu téye nii yow leer nga bu nga fay dugg ñu dugal la mm-hmm. ñu ñoo fi gis booy ñuy filmer ñëpp di gis ñu ñoo gis tamit ay yàmbaa mais loolu tey ñan ñoo ko fara dugal